docteur Mansour Diène ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñu lay fay bu baax. Elisa. ngay euh, DS en chirurgie pédiatrie adjoint tamit à la communication bu COMES muy collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes euh, fii ci Sénégal euh, ñu bëggoon a xam déjà kuréel googule lu muy firnde ak ñan ñoo ca nekk. kuréel boobu noonu benn kuréel boo xamante ne euh, médecins yi pharmaciens yi ak dentistes yi nga xamante Euh, am nañ seen diplôme ba pare ñoo nekk di utaat beneen lijaasa buy wanee seen spécialisation mm spécialisation boobu noonu nga ngeen ko xamee ci Sénégal dafa xaw a manqué fii nii si Sénégal mm -hmm. yooyu noonu bu ñu amee seen diplôme docteur ba pare dañ nekk di utaat beneen euh, xam-xam pour mun a gën a mun jëriñ seen seen askan mhm. léegi collectif boobu noonu nag moo dajale bépp docteur boo xamante ne dafa nekk di def spécialisation fii si Sénégal. mu taxaw euh, depuis kañ ndax yàgg na bañ ko taxawalee léegi. waaw commerce yàgg na avant. Euh, Euh, amuñu woon yàgg na fi sans mu am ay kayit mais depuis deux mille huit deux mille neuf si lañ am suñuy kayit. ba ngeen amee kayit léegi tey jii ñu bëggoon a xam kan moo affilié wu à ce collectif ndax ay sénégalais rek ñoo fa nekk. bon collectif bi comme ni ma ko waxee sànq képp kuy def spécialisation si biir Sénégal soo xasee ba. inscrire rek faculté médecine pour def sa spécialisation muy wàllum médecine wala wàllum pharmacie wala wàllum fajum bëñ mhm. ñu koy woowee chirurgien dentiste yaa ngi si biir mhm. waaye comme nu nga ko xamee spécialisation bi Sénégal dafa xaw a cher moo tax ñu si bëri ñu nga xamante ne dañuy def seen spécialisation si yeneen dëkk lañ jógee dëkk yooyu noonu yeneen saa yi dañ lañuy jox ay bourse wala yeneen saa ñoom ñooy jël seen xaalis pour ñëw def si fii nii spécialisation mhm. looloo compté soo si jëlee fukk ñett yi wala ñeent yi ñoo doon sénégalais. Mhm. léegi six yi wala sept yi euh, dëkk yu ñu xaritool la ñuy jóge docteur tey euh, ngeen teg euh, préavis de grève ci table ministre de la santé et de l'action sociale ngeen am yi ngeen ci ñaxtu ñu bëggoon a xam lan mooy jafe-jafe gi waral ngeen teg ci table bi préavis. waaw tey jii nii si biir commerce chaque année dafa am bureau bu bees boo xamante ni moom la ñuy fal. Mhm. léegi bureau bu bees bii nii bi ko falee jugul si di jéem a liggéey ak ministère pour xool naka la ñuy jëmalee paj mi si Sénégal de façon générale kanam mhm. puisque neen si ay points yu bëri surtout point wu spécialisation wu docteur yi mhm. ak même affectation après bu docteur yi ni di spécialisé wu yi mhm. waxtaan nañ tamit si condition euh, liggéey yu nga xamante ni ñun dee si moom la jànkonteel ministère bi jëm si indi saafara. Mhm. mais lu ñu seetlu ne mooy waxtaan yooyu ñu am lu ñu diggoon yu si bëri euh, avance wuñ si point yu nga xamante ne ñu ngi si doon wax ba mars avril ba tey jii nii août amuñu si benn avancement. yu ci mel ni. lu ci mel ni benn mooy statut lu ñuy woowee statut des déesses mooy euh, luy wane ñun place bu ñu am ci biir yi parce que ci biir l'hôpital yi tey jii nii dañu jàppee comme ñu ci dañu jàppee comme ay étudiants mm-hmm. alors que ñun ay docteurs yu nga xamante ne am nañ seen diplôme ba pare la dañ nekk juste di def benn spécialisation mm-hmm. te jour dañuy participer bu baax a baax ci liggéeyu hôpital bi mm-hmm. lu ci mel ni également bourse bu nga xamante ne des yi ñi nga xam ne comme dañ leen considéré comme ay étudiants ñu si bëri amuñu salaire bourse rek la ñu am. Mhm. bourse boobu noonu tamit soo jëlee fukki yi mën nañ ne ñett yi pour fay seen inscription DES pour yenn saa yi toppatoo seen njaboot duñu am lenn lu dul bourse bi. Mhm. lu si mel ni tamit wàllum congé maternité nga xam ne am na ay DES yoo xam ne tamit duñu am congé maternité dañuy liggéey ba ëllëg bu ñu waree wasinee sax yenn saay mhm. dañ dañ ciy nekk di liggéey am na tamit prise en charge médecin yi médecin yi tamit suñu gaañoo même seen wàllum liggéey ñu si bëri seen xaalis la ñuy mujjee jël pour di faju te loolu moom xam naa ne neexut a dégg. tey bu ngeen demee ba di ko ñaxtu ndax da ngeen seetlu ne diir bi dafa yàgg ñu bëggoon a xam tamit ndax dafa am tamit benn diir bi nga xam ne di ko def stage boo ci paree automatiquement euh, war nañ la régulariser. bon jàng bi si boppam dafa am ñaari fànn dafa am fànn boo xamante ne xam-xam bi dañ koy jox noonu am beneen boo xamante ne xam-xam il faut nga jëfee ko mm. wala ñuy wax apprentissage euh, théorique ak ah, apprentissage pratique mm. léegi stage bi am na ay cours ay jàngale yoo xam ne dañ koy def euh, am na partie boo xamante ne dañuy ñëw hôpital ñu woon ni directement liggéey bi naka lañ koy defee. Mm-hmm. loolu la ñuy woowee stage hospitalier. Mm-hmm. léegi jàng boobu noonu bu dee spécialité bu ngeen def médical rek la. Mm-hmm. boobu en général ñeenti ñeenti ñeenti at lay def mais bu dee spécialité boo xamante ne tey na ngay dem si wàllum opéré di def ay intervention lu ci ëpp juróomi at la am nañu ñoo xam ne sax dinañ def juróom benni at mm-hmm. léegi giir goobu yëpp diñ ko def di def ay euh, di am ay cours di defaale tamit stage si biir hôpitaux yi mm-hmm. quatre wala cinq ans balaa après ñu lay jox sa diplôme reconnaître tey spécialiste nga nga doogu mën dem nag liggéey pour askan wi. tey euh, euh, seen statut mu bokk ci li ngeen euh, li nga lim sànq comme ay jafe-jafe te it ngeen nam ko buñ ko buñ buñ ko defee. Euh, lan mooy soppeeku tey ci xar kanam seen liggéey. waaw statut bi de mooy xeex bu gën a mag bu ñu am tey jii nii parce que statut bi tey dina permettre déjà hôpital mu xam ne. Mhm. du ay étudiant simple étudiant la tey jii nii ay médecin la am yoo xamante ni dañuy liggéey si biir hôpital bi dañuy participer si bi dañuy participer si si yenn intervention chirurgicale yi maa yi nga xamante ni dañu hospitaliser tamit dañ siy participer. Mhm. te bu tey jii nii tamit guddi su jotee wala. Euh, médecin yu bëri ñibbi lu ñuy woowee garde ñoom ñoo koy assuré su amee benn urgence médicale benn malade boo xamante ne tey dafa am problème su ñuy guddi dees yooyu noonu tamit si ñu muy fekk si lañ bokk ñu toppatoo ko euh, def prise en charge bu si ba mu am jàmm ak waaw léegi nag tey jii nii suñu amee statut boobu noonu daf ñuy permettre ñu reconnaître suñu fonction boobu noonu ñu considérer comme ay médecin ba ñu considérer comme ay étudiant mm-hmm. dina tax tamit même suñu amul salaire tey jii nii dinañ mun am motivation hospitalière mm-hmm. yeneen saa tamit garde yu ñuy def hôpital nga xamante ne médecin bi mun na fa toog euh, bés bi yëpp ba ba bës bi yëpp par exemple su bu dee tey jii dafa xëy si suba suba si suba lay wàccaat mm-hmm. dina permettre duñ koy fay foofu noonu yenn saa ay trois mille cinq cent lay lay lay lay doon si si yenn bërëb yi te nga ne loolu tuuti na lool pour kenn koo xamante ne bu mu amee bagam jàng na huit ans nekk si hôpital bi fanaan fa ba bës set ñu koy jox trois mille cinq cent dina permettre loolu tamit ñu mun wax nu ñu koy yokkalee dina permettre tamit tey jii nii bu dee nangay ngay waajal euh, am doom da ngay waaj a mm-hmm. ñu mun la may congé bu nga xamante ne jigéen bépp boo xamante ne war na ko mun am dina tax tamit tey jii nii soo feebaree si biir lopitaal bi mm-hmm. ku nga xam ne moom la ñu woowee médecin du travail mu mun la euh, bindal euh, repos en plus hôpital bi mun la dimbali pour nga faju si si sa wàllum liggéey loolu noonu yëpp ay ay ay avancement la yoo xamante ni statut du DS boobu noonu moo ñu koy mën may moom mooy tax ñu am considération cër bu si war si biir hôpital bi weeru mars ak léegi euh, xanaa euh, xaw naa yàgg tuuti ba booba tey yéen a ngi wax euh, ñu ñu ñu ñu xoolaat anam gi ngeen di liggéeyee ndax booba tey am na waxtaan gi dox seen diggante ak autorité yi. waaw booba tey jot nañ waxtaan ak autorité yi. Mm. jot nañ dafa ay rencontre waxtaan si yu bëri avancé si ay point yu bëri suñu wàllu programme annuel sax dañ ciy discuter ak ñoom mm. xool ñoom naka lañ si mën intervenir yéen naka lañ si mën bokkee loolu yëpp jëmale de façon générale faju askan bi kanam waaye lu ñu gis ne mooy point yu bëri yi nga xamante ne dañ ko discuter ak ñoom ba tey jii nii mois wu août amuñu si avancement. daanaka accord am na. waxtaan am na. ah waxtaan am na buñ dégager ay solution mm-hmm. ba ñu ne waaw yoon bii nii war nañ fa mun aw. Mm-hmm. mais luñ seetlu ne mooy ba léegi. ko ni ñu ko war a doxalee doxalee ko parce que ba léegi dafa am ay retard si yenn point yi am ay points yoo xam ne ba léegi amuñu si avancement te comme ni nga ko waxee mars août ay mois yu bëri jàll nañu si tey jii nii war nañ mun avancement bu mag si yenn point yi waaye bu ñu seetloo ne waxtaan boobu noonu jàll léegi tey jii nii dañu obligé damaat ut beneen façon wu xeex mooy déposer benn préavis dafa ay communiqué si rajo yi. Mm-hmm. pour xool ndax l'autorité bi dina jéem a répondre à temps léegi nag su répondre après dinañu amaat beneen waxtaan pour seet ban moment lañ war a def boobu noonu incha allah. justement yooyu yëpp kañ lay am préavis bi kañ lay jeex ak euh, lan ngeen fas yéene euh, woyal euh, ci boobu lay xeex. préavis bi normalement su semaine bii nii jeexee. Mm. si si le préavis bi di jeex. Mm-hmm. léegi après loolu noonu nag bureau bi dina réunir at xool ban. ban anam lay lay lay continuer xeex bi incha allah. Mm-hmm. lu si mënti am rek incha allah dinañ defaat communiqué awaat si journaux nooy pour euh, wane. suñu suñu doxalin buñ na a am. gis nañ ne ci xeex yu bëri euh, ci organisation yu bëri cessation de travail bokk na ci tey jii yéen euh, bu ngeen demoon ba àgg foofu ban impact la seen grève bi di am ci euh, liggéeyu wàllum wérgu yaram. waa comme ni ma ko waxee woon sànq ñun ñuy woowee dee si biir hôpital yi suñu liggéey. am na solo parce que lu wàllum consultation yi dañ fay liggéey bu yi tamit malade yu ñuy opéré dañ fay dañ fay intervenir comme tey jii nii fonctionnement hôpital bi si nu muy gérer mhm. bu baax a baax mhm. guddi tamit sooy ñëw fekk yenn saa yi médecin de garde bi am na hôpitaux yu bëri yoo xamante ne médecin bu nga xamante ne dafay nekk di garde mhm. médecin dees dees dees lay doon kon même tey jii nii si wàllum fonctionnement hôpital bi askan bi pour mu faju dina si am ay ay ay gàllankoor bu dee dañ def cessation complète activité tey ñu nekk ci euh, jamonoy mbas mu gën a tar lool ci euh, Sénégal euh, ñu bëggoon a xam seen rôle yéen waa commerce bi ngeen di jouer ci dispositif vaccination bi. waaw dispositif vaccination bi déjà commerce jot na si def ay waxtaan di def si di def ay messages yu bëri. Hmm. pour pousser déjà médecins yi nga xamante ne ñoo nekk si hôpitaux yi pour ñu dem vacciner vacciner wu ah, askan bi tamit. Hmm. am na ñu bëri tamit ci suñuy euh, mbokk yoo xamante ne ñoo ngi liggéey si biir CTE yi ñoo ngi jël en charge malade yi nga xamante ne ak si hôpitaux yi ñoo ngi jël en charge malade yi nga xamante ne mm-hmm. feebar bi daf leen jot dal kon daanaka commerce mu si liggéey bu baax a baax pour xeex euh, mbas bi pour mu dellu ginnaaw ñu def bëccëg jóguñu si di xeex si mbas bi nii di Covid 19. ci xeex googule gis nañ ne yéen a ngi au premier plan weeru mars mu jaral leen ngeen jóg euh, daal di artu ni ñenn si yéen dañ leen a bañ ndax li ni mel jàll nañ ci leneen génn nañ ca. waaw comme ni ma ko waxee woon sànq loolu yëpp statut bi dina permettre ñu régler ko parce que soo demee si hôpital di fa liggéey yow chaque jour yaay njëkk a taseel euh, patient yi nga xamante ne dañ am ay doomu jàngoro. Hmm. vaccination jot ñu la doo vacciné wu parce que ñoom dañ jàpp ne étudiant nga. Hmm. alors que yow sa liggéey dépassé na liggéeyu simple étudiant. Hmm. looloo taxoon nag ñu ne loolu moom dafa ëpp. commerce mënu woon nangu mu am ñeneen ñoo xam ne dañ bokk si ñoom ñu war a vacciné wu pour aar seen bopp ñu leen tey doo leen fii vacciné wu mais bu ñu waxtaanee ak autorité yi dañ jàpp ne ñàkk ñàkk déggoo la woon parce que comme ni ma ko waxee bi suñ ko defoon ñëpp dinañ xam ban cër la DS bi am si biir hôpital bi ñàkk déggoo woon vaccin bu ñu ñëwee après ñooñu mujjee nañ vacciné wu si si anam yi gën a rafet. docteur Mansour Sène ñu lay jaajëfal bu baax a baax.